en tant que ministre. agent judiciaire de l'État parce que moi, moi, moi, les intérêts de l'État surtout décision décision de justice arrangement contentieux trans transigé le ministre a signé. Hmm. c'est l'agent judiciaire. Ali Ngouille signé mais li n'est que délictuel parce que man dama yor euh, euh, accord de transaction contrat de transaction bi li ñu ci bind si accord deux jours après nous versé 75 milliards. 2013. Nous signons accord. Nous sommes un an. Nous avons gens qui ont été Nous avons tous un peu de temps été Nous sommes tous Nous versé 45 milliards. Et après, nous avons 5 milliards de qui ont Nous avons fait un avocat qui a défendu le Nous avons fait en trois lois de finances différentes xaalis dont une seule loi euh, euh, euh de finances ordinaire Je ci des yëpp rectificative mm. donc léegi Nous, ni 45 milliards après nous avons 25 milliards Nous avons 70 fa nous ñu yem 5 milliards nous nee nañu dañ ko charge d'avocat avocat tout ça duuduwaat sax mu ngi leen ko doon laaj ay jamono. duuduwaat waaye léegi li gravaat ci loolu. 45 milliards bi ñu njëkk a

dañ ko affecté directement à la construction de l'université Cheikh Al Islam Ibrahima Niass bu Kaolack. bu Kaolack te université bi ba léegi paréwul pareewul de. nañ hein? ko mujjé moy patch patch yu bëri nan len du benn site rek li tax mm. ngeen nan paréwul mm. site yu bëri la. waaw légui nak légui nak légui nak légui nak légui nak lolu c'est grave. lolu Aly Ngouille Ndiaye ak Macky Sall il faut que nous ñu 20 20 milliards D'abord, affectation directe ça, la n'est pas permis règle et principe budgétaire devenus toutes toute recette et toute dépense doivent être obligatoirement inscrites au budget donc affectation directe qu'est-ce Qu'est-ce que problème là problème nag Cheikh Al Islam 20 milliards mënul pare ci biir passation bi Sénégal a gagné marché avec ak euh, société américaine mu gagné ah, ba nous attribué ko marché bi ñu nangu ko jox ko ay chinois fi mu nekk nii chinois yi dañ leen ameel xaalis moo tax ñu téye liggéey bi xam nga chinois du caaxaanee liggéey. Mm-hmm. xaalis lañ leen ameel moo tax finition yi àggul. ñu ngi ci ay phase de finition parce que dañ leen ameel xaalis donc loolu. moo tax may tudd Aly Ngouille Ndiaye parmi d' autres dossiers nag. parce que nous 10 or jaay ko tout le temps tout le temps kan comme ministre Ce n'était pas Ali Ndiaye président Ce pas Macky Sall. Mm. na ay dossier miniers ne ko faire surtout dossier une question pour. vous est euh, euh, euh, non man damay. faut. xam avant bi clédo di aw. xam nga dossier judiciaire yi. Mm-hmm. crime de sang yi mm. ordonné exécuter <laughs> mais gis nga parquet bi. gis nga justice. changer assemblée changer assemblée euh, non madame, justice de manière générale justice moi, am liggéey. am na ñoo xam ne boo ci détournement ñu mucc. Mhm. duñ mucc ci crime d'assain sang mm. am na ñoo xam bo len daxé ci crime d'assain bi ñu mucc du ñu mucc ci détournement de deniers publics mm. motax rew tax mi mais vraiment la justice amna ligue. liggéey de.

bindal un ma jox deux muy trois. ñu Il ko. a un accord de contrôle bu Ousmane xam nañ ni yoyu amna parce que jaar nañ fofu ñom mucc. mais seen ay collègues yu muccuñ ci. doit être réformé. Mm. lolu moom xola boo bëggee Sénégal réformer l'État. bi réformer Lolou, mais le projet à court terme à long terme faut le projet bi mais à court terme le yi est diligenter et, et, et Nyinga Hamne, le président, euh, je dis toujours le président, mais il est le président de PASTEF aussi, euh, le ministre Ousmane Sonko a annoncé que amna ñu wax ñoo xamné euh, daw ñu génn Sénégal merci fofo intéressant ñëwul waaw tay ji euh, naka leen mëna def ñooñu aussi euh, fekké dañoo am dossier yoo xam ne justice wane na carrément liñ lañu njox su ne dañ cee laalé comment lañ mën a activer aussi li nga xam ne moo la machine justice am na ñaari option oui justice bu ko neexee parce que rappeler aussi beaucoup de nos autorités ay double nationalité la ñu yor. waaw mais n'empêche justice bu ko neexee mu dese na ay mandat d'arrêt international. Hmm. ta mandat d'arrêt yooyu xam nga lutax xam nga ñu bari ñu ngi lay wax na la rew yenn duñu duñu duñu rapatrier. dinañ leen rapatrier xam nga lu hmm. pression bi ci ànd. xam nga le Sénégal ki agite renégociation des contrats. Hmm. ak yenn rew yoy yow pour yi léegi réew yooyu fi mu xam nga lu ñuy teg ci balance man Ousmane Touré mi daw réfugié wu ci rew moomu. ak contrat bi ma lii ak Sénégal ban moo gën a diis. <laughs> dama la laaj ban moo gën a diis pour yow. Hmm. man mi réfugié wu ci benn réew. wala contrat bi lii réew moom ak. Sénégal intérêt réew boobu Sénégal moo ëpp. intérêt réew moom moo gën a diis. Hmm. mooy li Erdogan defoon Macky Sall. Hmm. entre tëj yeefu Salim wala mu coupé samay lien ak yow bu gën a diis. moom la Erdogan tam defoon. américain yi. bi coup d'état bi amé mais daf leen menacer livreel sen base su Incirlik bi. gars yi dëpp ginnaaw. donc bu intérêt bi taxawé gars peu importe fuñ dem mën na leen extrader muy ben benen bi justice mën na juger nécessaire ndax bien yi mu saisir ci ñom jarna après muy desee na mandat d'arrêt ou pas mais benen bi dama gis ay nit yu malhonnête. tok ci ay plateau naan li am c'est du banditisme d'État moy xam nga la. Il y a des gens qui doivent déférer devant la justice C'est ce que wax euh, les mêmes raison d'être Ousmane Sonko ñu assigné en résidence surveillée Sénégal hypocrisie fait de fait fait quoi c'est les mêmes yi qui ci hmm. plateau la état xam hmm. te xam na ni liberté wu ci ay occupation ordonnance bu juge de même un commissaire de police du ko hmm. du ko joxe. dañ fi barricade nit cinquante cinq jours avant ñu barricade ko plusieurs fois lu ñu daan wax xamoo leen li état bi yor ah pourquoi fii waxuñ xamoo leen li état bi yor. gis naa leen quoi ñu toog ci plateau yi di ko wax naan lii c'est du banditisme d'état Sénégal en fait say appréciation mi ngi dépendre yow sa position. xoolal njàpp képp ku war a defeere ci du ci kanamu yoon. yoon am na droit tëj frontières yi bu dee amoo. amul garantiwu wu ni boo génnee doo ñëwaat. Mm-hmm. mun nañ la aaye nga génn. Mm-hmm. loolu moo gën a valable barricade yi naan barricade Ousmane Sonko donc c' tout à fait normal un homme bu yor ay dossier of nag ci sa direction. bi yaa ko tudd de. Ah. am dossier yow bilan kan bi di la xaar. <laughs> bilan kan bii paase rek musiba la. Mm-hmm. lonaas ñëwagut ñu naan ay.

Nouvelle responsabilité. On enchaîne avec <laughs> Amoudouba qui s'engage et lance euh, la nouvelle responsabilité qu'elle est d'or. Amoudouba, Moumendekom, ben comeback depuis les élections ñu doon xaar euh, Amadou prononcer « prononcé mais on a vu Amadou Ba ba mu ñëwee ba ay visite lay euh, def ci euh, foyer religieux mu ñëw ak tur nouvelle responsabilité qui veut dire quoi parce que bu njëkk ba nit ñi nan il n'a jamais été leader cette fois-ci est-ce que mën ñu wax Amadou il est revenu pour def li nga xamné confirmation on est en train de lui faire de la publicité. J'espère qu'après, après, on, va, faire de la publicité. on va faire de la publicité pour Claire Vision après. Moi, je vais faire de la publicité pour Claire Vision. la publicité. non, je vais je vais Je vais a publicité Amadou Ba le publicité Claire Vision. Je il a été trahi politiquement par <laughs> Macky Sall qui présidentiel mhm. ñu Nous ko le Euh, di ko galgal mu metti ñu bëri. Mm-hmm. am na ñu àndoon ak moom par intérêt. Mm-hmm. mujj gi dañ ko lâché. Mm-hmm.